woon pour euh, candidat Bassirou Diomaye Faye ndax dañ ñoo convoqué woon pour mu mën a def li nga xam ni mooy dañ ko jox ñetti minutes ci RTS comme candidat yëpp pour mu mën a def communication ginnaaw nag moom mënul wax ndax mu ngi ci kaso waaye amoon na yeneen format yuñ ko may mënoon naa def euh, bulletin spécimen bi rek teg ko mënoon naa génne photoom mënoon naa wane nii moom mënul ta wax waaye teew na te dugguleen ci réew mi am na waaw am na fi yàgg na fee am. élection législative 2017. waaw Khalifa Sall. donc euh, li fi xew nag mooy bi ñu ñëwee bu dugg ñi nekk ci yore sécurité bi ci bunt bi dañoo bañ ne duñ dugg ñu ne ko a ah, waaw lan moo tax mu ne ñu xaar leen rek ci biti ñu bi ñu xaaree ba xaar bi yàgg ñu ne ko ñun suñu temps mu ngi jeex ñu informer autorité yi nga xam ni ñoom la nguur gi sant ñu saytu lépp loo xam ni mooy enregistrement fii ci RTS muy CNRA. responsable bi mu ngi ci biir daal ni ñu ah lii de jaaduwul xaw ma man mii di wax ak yéen lan moo tax ñu ne ko nag da war a génn nga ñëw xool ndax kër gii nga xam ne fii la ñuy defee euh, enregistrement yi RTS la te yéen RTS yéen a ko kilifteef gi ngeen am ci moom ci période électorale ba kenn mënul wax nan la nan la toll. nga woo directeur bi nga laaj ko lan moo tax ak kan moo joxe ndigal ñi bañ a dugg mais munoo làqatu ci <coughs> am ay ñu jox la ay pouvoir ay ay sañ

ba pare léegi nak peuple bi mo wara a ndax lu mësta am Sénégal ba indépendance amee léegi muy di reporter ay élection te lu ne xew est-ce que ñoom nangu nañ la am te yeneen dëkk yi ñu gis musiba yam xëju ñu am lool kese mo fi dess jeexal nañ seen nguur fim mu toll ni mom képp mo fi ne amul sax ministre bu ko soutenir premier ministre candidat bi sax nee ko bayil nit ñi dem élection moom ak ñetti député ak waa yoo xam ne nekk bitim réew ni moom mooy commandé lan mooy 7 millions de sénégalais yi war a def loolu sénégalais yi duñ ko seetaat et je pense que message biñ ko war a yónnee dina comprendre ni moomu réew mi nguuram jeex na il faut mu comprendre ni nguuram jeex na jërëjëf.